tal leen ak jàmm ci la ñu ne kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien génn résultat provisoire élection législative yi ma ngay wéy di gën a génn waaye coow la ma ngay wéy moom itam di gën a yokk waa maa ngi ko taxaw Sénégal gannaaw seen janook taskatu xabaar yi ñaawlu fa ñaawlu gën a yam saboté gi ñu def ci élection législative rawta Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu jàppale ku jig njàkk mooy njàkk moom ak président Macky Sall mi nekkee ci gannaawam waa maa ngi ko taxaw Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo wane na ne dëgg-dëgg xamul xaal wala kasiran ci mbirum élection mu tax mu def li mu def tey jële waa maa ngi ko ne léegi nag wax ji jeex na takk Abdoulaye Daouda Diallo la ñu bëgg mu abal leen ci ni mu gën a gaawee japp ne ñoom am nañu ndam ci doon bu Ndakaaru ba noppi commission départementale bi saytu lépp lu jëm ci wàllu recensement yi ci wàllu wote yi ko ci résultat provisoire yi mooy waa Benno Bokk Yaakaar yi ni kaay bi commission boobu lekkee ni kiy démb guddi woon na lool laata ñu joxe résultat provisoire yooyu li waa manko gannaaw ba ñu joxee ne waa benn bokk yaakaar ñoo jël ndam li ci département bu Ndakaaru topp ci waa manko taxu Sénégal waa coalition gagnante wattu Sénégal waa PUR ak las yéen kay ne feneen foo xam ne fii moom itam ba tey anduñ ci résultat yi mooy département bu Ndakaaru ak bu Mbàkke résultat yi tukkee ci département bu Ndakaaru ak Mbàkke xëccoo bi dox ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak waa manko taxu Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar ci yéen kay bi kee ci résultat yi ca diwaan bu Mbàkke ta loolu sax tax na ñoom waa benn bokk yaakaar ne dañuy dem def recours dingat ko ca conseil constitutionnel ngir ñu neenal wat ba doon am ca diwaan bu Tuubaa ngir ñu defaat ko Déthié Fall bu man ko taxaw Sénégal ne leen soxal du leen rek ñu may ñoom waa opposition bi yëpp taxaw nañu tem ngir fexe ba li askan wi wax ci mbañ gàcce ñu sàmmante ko coow loolu li am ci résultat ndegandiku yi les économies moo taxee ñooñu Xalifa Sall maire bu Ndakaaru ak maître Abdoulaye Wade amal nañu ndaje mu yaatu niki démb ca kër maître Abdoulaye Wade ndaje moom la yéen kaay dara sababu ko woon may rek a fexe ñoom opposition bi ci boppam ñu xool ban tànk ñu war a mën a taxawee rax ci dolli xool naka la ñu mën a ba jàkkaarloo ko nguur ki bi ñu jàpp ne dafa bëgg sàcc élection yi Bamba Fall ne donte ñu ngi rëccu ci xajjaloo bi am ci opposition bi laata ñu amal élection législative yi waaye fi ñu toll dara weesoogul li ci ñoom dëgg-dëgg gi ba mu fal de mooy ne danañ taxaw ñoom ñëpp ba président Macky Sall ba du delloo gannaaw démocratie bu réewum Sénégal xajalo boobu le am ci opposition bi laata ñuy amal élection législative yi enquête yi ni kay ne mu taxee jamono ji kay fi ñu toll yi rëccu la ci diggante waa Manko taxaw Sénégal ak waa coalition gagnante wattu Sénégal la gannaaw ndaje mi doxoon ci diggante ñooñu maire bu Ndakaaru ak maître Abdoulaye Wade Wade yi ni cabinet ndaje moom la ñu ngi ko amaloon ca fan ca kër maître Abdoulaye Wade wote yooyu ak li tukkee ci commission de recensement de vote ci département bu Ndakar libération ne waa Benno Bokk Yaakaar ci boppam moom la ñu jàpp gum ne moo jël ndam li bay njort sax ne Benno Bokk Yaakaar fi ñu toll ñi ngi xalaat ne dana am lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay député ci assemblée nationale coalition gagnante wattu Sénégal bu maître Abdoulaye Wade de ñu njot ne dana am lu toll ci fukk ak ñaari député yi waa Manko Taxawu Sénégal juróom-ñetti député yi kaddu askan bu Abdoulaye Baldé ñaari député yi yéen kaay bi ne fi ñu toll nii waa PUR am lu mu néew néew ñetti député yooyu lay gël yéen kaay bi ne Khalifa Sall ci ñu toll nii taxaw na ngir lënkoog maître Abdoulaye Wade ngir ñu xeex gouvernement bu président Macky Sall Walf Quotidien lu jëm kay ci xeex bu métti bi am ci département bu Ndakaaru te Benno Bokk Yaakaar taxaw te mu ne Ndakaaru ñoo ko moom li ñu bëgg du lenn lu may fexe du nekk njiital opposition bu Sénégal Sénégal la ni ki démb lañ doon àtte Pape Samba Mboup ak Clédor seen ci doon bu dëkk Rewmi Quotidien Pape Samba Mboup kay dafa lank tëdd ndaar ne du nangu benn yoon ñuy déglu baatam ma gannaaw ku xelam màcc ci wàllu wóol bi mu ñuy taxaw ngir leeral dëgg-dëgg ne baat ba kale door seen fësal ndax baatu Pape Samba Mboup la wala déet waaye Pape Samba Mboup moom dafa lank ne du ca waxati moom kale door seen ci Rewmi Quotidien lii la lancement dongal waaye film bi ñëwagul te film bi kale door seen ne tey jëlee sax yaakaar ne dana fësalate beneen révélation di ne bii ay baara yëgul yoo xam ne am na ci réew mi ñu ko li ñëpp yëkk mooy ni benn fan ci weeru janvier combat diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 sunu lamb ne lu jëm ci combat boobu la mu tax ba Gris Bordeaux ci boppam jamono ji ma nga ca diwaan ba Espagne ndax moom ci boppam yéen kay bi ne ndam rek mbaa dem retraite